ak ëllëg xaadimu rasul keneen ki di ku ñuy wax Aldous Huxley xam naa jombul dina bizarre ci ñenn ñi lu tax ñuy tudd sëriñ bi di tudd keneen ku ñuy wax Aldous Huxley ak kan moo kooka mooy kan waaye suñu waxee tuuti dinañ xam li tax ma di ko wax Aldous Huxley mi ngi juddoo dëkk bu ndaw bu ñuy wax Godalming ca England England mooy Angleterre mi ngi juddu 1894 waaye ma nga faatoo ci dëkk bu ñuy wax Los Angeles ca Californie ca 1963 écrivain la woon bind bindkat romancier di bind ay roman nekk tam philosophe dafa am wax yum wax xaadimu rasuul itam wax am wax yum wax may def croisé ku ci nekk ak say wax kii may bëgg a wax nii li mu wax 1939 la ko waxoon Serigne Touba mi may waxaat wax na li wax ba dund fi ba yóbbu ko ba indiwaat ko ba mu wuy ji boroomam ba mat fukki at ak ñaar mu mel ne da doon tontu waxi kooka xam nga. décalage bi bari na lool Aldous Huxley ay waxam moom laay tàmbalee daf ne képp ku bëgg a not aw askan ci làkku nasaraan lañ ko bind waaye dama koo tekki ci wolo ngir ñëpp mën cee jariñ képp ku bëgg a nos aw askan ba duñ fippu ba loo wax ñu def ko ak lu mu juunu juunu mu jig la nee na ku bëgg lool nee na bul jëfandikoo violence ndax nee na loolu méthode bu xewi la ndax Hitler moo ko daan def xanaa kon war nañoo bàyyi ñu wax mu wax ñu ban méthode moo xew mu ne méthode bi xew mooy danga leen di conditionner nit ñi ndax mi ngi waxal képp kuy jiite aw nit te bëgg leen a not moom la kii di waxal da leen di conditionné maanaam tënk leen ñoom ñëpp dajale leen ba waxuma ne fipp waaye seenum xel sax du ko daj nee na loolu ngay def daan ne ana noo koy defee daal di ñëw ci première point bi daal ne da ngay raxas seen bopp li ñuy tuddee brain wash mooy nit ki man-man yi yàlla defoon ci moom ci ngor ci jomb ci fulla ci fayda ci mbañum rus ak bañu noteel yooyu yëpp nga fexe ba mu jeex ci moom ndax lu lu mu judduwaale la woon ne da fexe ba mu jeex ca moom te defe ko ca ndaw ba ca tegee nee na nga fexe ba njàng mi askan wi jàng nekk njàng mu méjok méjokur mooy lu suufee te woyof te doyadi bu mu nekk njàng moo xam ne nii day yee sa xel ak di la xalaat loo waaye na nekk njàng moo xam ne juste pour am liggéey rek la nee na na ngeen fexe ba tënk leen ci lool bu mu nekk njàng moo xam ne nii pour pour pour yee sa xel la ak moom sa bopp ak di jéem a génne ay xam-xam yeete wala muy jariñe wala muy génne ay idées yuy mën a doxal jamono nee na bu mu nekk njàng moom na nekk njàng mu médiocre rek nañuy am diplôme yi waaye bu fa xam-xam ba ne ba ca tege mu ne na ngeen jéem a fexe ba ba yegg ci njàng mu kawe mi nekk lu jafe lool na ngeen fexe ba yegg ci njàng mu kawe mi jafe lool ndax njàng mu kawe mi dalay yóbbu ci gëstu te gëstu dalay yóbbu ci nga xam sa bopp te boo xamee sa bopp dangay fonk sa bopp te boo fonkee sa bopp kenn du la mën a nax te kenn du la mën a yilif itam ci lu dul yoon nee na su fekkee àgg ci njàng mu kawe mi mënta ñàkk nee na na ko benn élite di def élite mooy as mbooloo rek a mbooloo mu ndaw bu ko defee mbooloo moomu dañuy am li ñuy tuddee complex de supériorité ca ña jàngut ña jàngul itam am complexe d'infériorité ca ña jàng bu ko defee nga mën a jaar foofu pour créer pour pour pour pour leen mu ne ba ca tege mooy nañ fexe ba information yi askan wi di jot bu mu nekk information yoo xam ne day tax ñu fit xam nga loolu su fekkee dégg nañ ko bu baax day tekki rek ne bu leen wax askan wi dëgg dee leen wax rek naka su dul noonu ndax léeg-léeg nga xam lëf tey te fekk lëf loole nga nga xam tey 1962 ba léegi ma ngay dox kon am na ku la ko waroon a xamal te nëbbu la ko ba ca tege mu ne fexe leen surtout nag ba buñ jàng philosophie ndax it loolu philosophie day dalay xalaat loo xalaat bu xóot boo xam ne ni da ngay mën a ràññale am mbir la cay dëgg la ci du dëgg mu ne fexe leen nag ba buñ buñ buñ ko jàng nee na jamono yu nekk ne dee leen nooyal jëmee ci askan wi ndax méthode bii ma leen di jox buy dugg ci ñoom duñ ko yëg day dugg rek te duñ ko yëg nee na dee leen nooyal waaye bu ngeen taralee dañuy tàmbali reculer te bu ñu reculer dañuy gis seen kanam nooyal leen rek ba li ngeen li ma bëgg nii ngeen koy dugal ci ñoom na dugg te duñ ko xam mu jàllaat ci beneen point daal ne bu leen bari mukk ci télévision yi ak rajo yi ak plateforme bépp buy diffusé euh, bu leen ca baril luy jàngalee ko yeeke nee na daal na misik yi bari pecc mi bari fo mi bari ak lépp luy xiirtal lu leen di xiirtal ci bànneex ndax loolooy mën a tax seeni xol fees fees dell la ki caaxaan ak yu doyadi ba duñ mën a am lu leen di yee ak xalaat loo mu jëlaat beneen point daal ne jël leen nag njaalo ak i mbokkam njaalo daa mi mbokk yéen ma gën a xam mbokk yi njaalo ak lépp lu yàllool jëm leen ko teg ko au premier rang nañ ko daganal ba saa yoo ko soxlaa rek mu jàppandi la nee na bu loolu amee da ngeen gis ñu tàmbulee bañ lu baax di bëgg lu bon daal di jëlaat beneen point daal ne na ngeen fexe ba seen mag ñu baax ñi wëlër yi ñu leen bàyyi loon na ngeen tàmbali di ko suufental di ko sobental di ko saboté lii nag bi ma jàng texte bi ba agsi ci sama xel daa dem ci bi ma nekkee gone dama daan dégg woykat bu daan woy naan kaalaak kurus sotalaak sikkim ba ñu ma ko dama ko ragal nga xam ne loolu mooy symbole islamique yëpp la dajale nee na ba ñu ko waaye da ko ragal loolu dangay ngay daal di xam te ba nga màggee ba jàng dangay xam ne ah kon kookee am na ku jaarale xaj na moom doonu ca dara xaj na da ko way sax te xamu ko waaye am na luñ manipule manipuler ba mu ci moom mu way ko ndax kaala moom ci jullit lañ koy xamee kurus mooy wér di sutu la euh, euh, turu yàlla yi sota la moom la ñuy jàppe ngir mën a julli sikkim mooy masar islaam yi la doo bu euh, dafa ab jullit loolu nga koy xàmbee góor sax moom nga koy ràññalee ak jigéen mu ne nag nañ fexe ba valeur islamique yooyu nañ ko sobental suufental ko sobent sobental daal di jëlaat beneen point daal di ne ngeen faxe ba ku la gën a mën a yëkkati po ak caaxaan ñu dooleel ko yëkkati ko donte waxi doftal lay wax nañ ko dooleel ba ay moroomam ñee ko ndax loolu ci ngeen di mën a am ndam li ma leen di wax ni nee na la bu ngeen lii nag bu ngeen ko defee ba li ëpp ci nit ñi nekk ci ay caaxaan ña gën a néew ci nit ñi dañuy jàpp ne nekkuñu ci dara ñee ñoo nekk ci dara ñu def wut wut wuti leen nee na bu boobaa nag am ngeen la ngeen bëggoon lépp da ngeen di mel ne ku yor sa sa jur rek di sàmm daal di jëlaat beneen point daal ne bu ko defee ñu nuur ñoom ñépp ci mbon ba kenn ku jóg di leen jéem a gindi sax yow mi leen di jéem a gindi ñoom ñooy jàpp ne yow da yaagoon nee na ci dayo boobu laa bëgg mbir mi àgg daal di jeexale daal ne te képp ku jóg di xeex mbon gi xew ak ña leen cee jàppale nañ ko diaboliser taxé leen ay terroristes buñ insister ñu ger leen ndax képp kuy fippu boo ko geree jox ko nguur mu wéri ngànnaayam foofu nag nee naa ko sëñ Aldous da ngaa juum waroon ne képp kuy fippu te du gor boo ko geree jox ko nguur mu wéri ngànnaayam waaye gor su gore ger ak nguur du tax mu wéri ngànnaayam lii mi ngi ko bindoon 1963 nañ ñëw ci li Sayxul Xadim radiyallahu taala an bind nga xam ne day mel ne da koo tontu. point par point moom nee na nañ nelawal nit ñi ba kenn du yow sëñ Tuubaa nee na qultu munabbihan lakum yaa qawmi intabihu min sakaraati naw yéen sama askan maa ngi leen di yee ne leen yow leen ci nelaw yu xóot yi ngeen nekke ngeen yaakaar ne nelaw yi ñuy nelaw guddee tax sëñ Tuubaa di wax déedéet jaa jortuma ko nelaw yi muy wax mooy nelaw yi nga xam ne nii lii xew ci jamono doo xam lii xew ci jamono doo ko xam lii xew sa digganteeg sa boroom ba nga mën koo jaamu doo ko xam te boo yittewawut lii xew ci jamono waa jamono yi topp waxi ngóor si ca la dëgg ba xañ la yow sa digganteek sa boroom moo tax mu ne xultu mu nabbihan lakum yaa xaw qawmi intabihu min sakaraati bi yéen sama askan yow leen ci nelaw yu xóot yi ngeen nekk nee na nañ si nee na njaaloo ñu teg ko au premier rang sëñ Tuubaa déedéet ne déedéet naa il kawaaxiba wal xawaaniya waxtasil in tadnu minha min radan la taslam nee na waxuma la njaaloo dama ko jël jege fenn jigéen ñi nañ tooge nee góor ñi nañ la nee jege rek doo ngeen mucc alhamdulillahi alladi addabana bilqurani alkarim وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق والموعظة الحسنة والأسلوب الحكيم وقال تعالى في كتابه الكريم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وسيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه وجملة المؤمنين إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اعلموا أن القرآن هو المنبع هو المنبع للعدالة في كل زمان ومكان وإنه لتنزيل من حكيم حميد منان ولا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وما فضل دينكم على سائر الأديان إلا بمعجزة الدهور وآية العصور كتاب الله القرآن فإن جعلتموه بين أيديكم كان لكم قائدا في الآخرة إلى المغفرة والرضوان وإن جعلتموه وراء ظهوركم كان لكم سائقا في الآخرة إلى الردى والنيران كيف لا وهو اللؤلؤ والمرجان ويامر بالبر بالبر والصلة والأمان وبالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والعصيان وفي الحديث أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وفقنا الله جميعا لمتابعة الحق حيث كان وأجارنا بفضله من متابعة النفس والهوى والشيطان الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة, إخوة ونعمة الرضا ونعمة الأخوة في الإيمان وصيرهم بين الفرقة كالبنان وكالبنيان والصلاة والسلام على نبيه الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين أما بعد فيا أيها الناس عليكم بالصبر فإن فضيلة الصبر من أعظم الفضائل ومنزلته عند الله من أشرف المنازل ومن كان صابرا فهو المؤمن الكامل وينال ما لم تنله الأوائل وبه فتحوا البلاد وأظهروا الإسلام وقهروا نفوسهم وبه صاروا أقوياء وعلماء وأغنياء وسادة الدنيا والدين وبالصبر يجد كل إنسان في موقف القيامة ما قدمه من صالح الأعمال في الديوان ويتجلى له الله بالرحمة والحنان ثم يصب عليه الثواب والرضوان ويقول سلام عليكم طبتم يا أهل الإيمان ادخلوا الجنة بالأمان وقد رضيت عنكم بما صبرتم من الامتحان ورضي عنكم سيد ولد عدنان صلى الله عليه الكريم المنان يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين